dama ñëwoon tey rek euh, ci euh, euh, Mbour pour installer le le commissaire central bu bees bi nga xam ni moom la fi kilifa yi teg muy le commissaire El Hadj seen Sène nekk aussi vraiment commissaire boo xam ni ku man liggéey ku xam liggéeyam la ku man liggéeyam la jógee Rufisque def fa liggéey bu rafet bu mucc ayib moo tax ñu wóolu ko indi mbuur ndax mbuur dafa nekk dëkk boo xam ne dafa mag dafa mag ci. nit ñi fi dëkk dafa mag ci koom bi fi nekk dafa mag aussi ci place bi mu occupé ci tourisme ci Sénégal donc euh, yaakaar naa buñ bu autorité bi xoolee kenn ba indi ko fi rek c'est que dañoo am yaakaar ci moom te yaakaar boobu li koy fondé mooy lam def fa mu nekkoon loolu mooy tax autorité bi di am boobu yaakaar ci moom bu indi ko waaw ñu ñaan rek di ko ñaax que yaakaar boobu mu bañ a tas mu góorgóorlu ànd ak ñi fi fekk ñëpp liggéey liggéey bi. Euh, ndax mom fekk na fi lo xamni commissaire Mandjibou def nako fi ci ñetti at yim fi ne def vraiment liguey bu mucc ayib voilà vraiment ci résultat voilà ci aussi defaraat euh, togaay taxawayu éléments yi te lolu dañ ci insister autorité bi di ci insister lool moy éléments yi ni ñi nekké ak nit ñi ak doomu aadama yi ak population bi waaw ndax euh, liñ bëgg moy képp koo xam ne da ngay ñëw police rek soo fiy dugg si vraiment boo accès rek niñ lay teertoo sa xel dal nga xam ni fii kan moom macha allah leer na ma ni sama njàqare li ma fi dugal wax dëgg yàlla dina dina jeex tey moo tax ñoo xam ne éléments yi ma insisté ci sama discours ne leen bu nit ñi population yi ñëwee na ngeen leen teertu waaw teertu vraiment boo xam ni la ñuy teertoo gan mooy yaatal leen mooy courtoisie yaatal leen waxtaan ak ñoom dalal leen ba ñoom ñu man leen wax seen soxla ndax nit ki boo ko dalalu yaatal ko euh, mu nuyu la nga nga fas sa kanam wala fayoo ko kooku du la ñeme waaw bu amoon sax renseignement boo xam ni yow dalaa amal njëriñ ci sa mbalu sécurité bu boobaa day daal di génnal rek dem du la ko wax waaw te aussi bu amee soxlaam pour ñëw ndax bëtam dafa xonq motax mu ñew police bu aussi day japp ni fi mom sama problème du fi suis wo motax ma insisté ci ne vraiment nañi euh, dalal bu baax di dalal jamm di ñi nga di police soit di fi wut ci keuyit wala porter plainte voilà ñooñu dañ je suis dalal bu baax waaw suñu kanam voilà déglu ñu orienté foofu lañ wara dem pour ñu régler sen problème lolu autorité bi kilifa yi d'ailleurs amna formation yo xamni ni sax ñi ngay continuer encore diko def dans le cadre de la formation continue suñu élément yi pour vraiment l'accueil du public gën a gën a vraiment yaatu gën dal population yi te loolu yaakaar naa lu am importance la voilà ndax police euh, population yi doo nga tax ñu ne fi ndax bu fi population yi amutoon police du fi nek

bari donc bari aussi ñoo xam dañuy ñëw di dem moy dëkk touriste la dëkk bu am démographie la dëkk am donc motax autorité bi ni il faut ñu def fi benn bureau bo ku mëna dëkk ci département bi man fay ñëw joggé joggé Joal joggé ci biir dëkk bi ñëw passeport ñu jox la ci ñaari fan nga sa xam nga bu bu da nga day dem hmm, déposer jóge fii dem ba Tivaouane donc loolu autorité jàpp ni kat kaara ñi ma jegeel leen service public bi ba vraiment li nga xam ni moom la ñuy wut ñu man koy am ci noo xam ni noonu la gën a gaawee mën a coono wàññi coono ci ñoom ndax dana la wàññil paas bi nga paas ba dem Dakar bëgg a jël taxi dem ba bureau passeport wala nga paas ba dem Tivaouane loolu lépp yaakaar naa ni ci euh, ci njëriñu population yi la waaw moo tax autorité bi def ko fii ñu ubbi ko tey nag pour que vraiment département Mbour yëpp jëriñoo bureau jërëjëf Parlant un peu de ma, de ma famille euh, naturelle, ma famille d'adoption, la famille policière. Commissaire, vous avez la chance d'avoir des hommes et des femmes excellents, très disciplinés, qui ne demandent qu'à être coachés, qu'à être coachés pour persévérer. Vous avez des hommes et des femmes, commissaire, qui sont promptes à honorer la corporation policière. Parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans un contexte où parfois on est léché, lynché par, je n'ose pas dire les journalistes, parce qu'ils ne sont pas les seuls à le faire. Parce que le travail de flic est un travail extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je t'inviterai à insister davantage auprès des hommes sur la tenue sur le comportement. Comportement verbal, comportement gestuel, comport vestimentaire. La cellule en a besoin dans une période où ce n'est pas très, très, très facile. Donc je disais au commissaire Serre que Bourg est une ville difficile, mais très facile. Difficile parce que Mbour est une ville cosmopolite. Difficile parce que Mbour est une ville insensément Difficile parce que vous, est une ville foncièrement culturelle. Difficile également parce que toutes les autorités du Sénégal ont des intérêts. Vous serez souvent appelés, Prison par la première hiérarchie, pour une raison ou pour une autre. Mais tout ce que je te demande, commissaire, c'est d'être à sur la Tout ce que je te demande, c'est d'être fidèle à la République. C'est Puisque que nous autres, nous sommes les garants de la stabilité et de la sécurité de ce pays. Nous sommes les gardes. Nous sommes les pays et la police occupe une, une part centrale dans le dispositif sécuritaire Par conséquent, je vous demanderai tout simplement de faire ce que vous avez toujours su faire, c'est d'être droit, d'être légaliste. C'est tout ce que je dis. Il y a des hommes et des femmes ici qui disent que mon étude sont profondément politiques. Mais c'est des politiciens très responsables. Très responsables. C'est des gens qui, malgré le discours, malgré la tonalité du discours, malgré les nerfs qui peuvent être parfois à le de discours, malgré le fait que certains, parfois, comme on va vivre dans nos c'est des gens responsables. Et tous les débats politiques finissent toujours autour d'une table Oui, oui. Parce que tout le monde est parle. Oui. Et c'est ça l'importance, euh, l'intérêt et, la chance que nous a. Et tout fonctionnaire affecté ici à vous peut bien évidemment appuyer sur ce levier pour faire le travail qu'il nous faut sans grand bûche, sans couper, sans bouche. Et ça, nous vous en remercions très très très chaleureusement, monsieur le maire, messieurs les maires, monsieur le président du conseil départemental et tous les acteurs politiques du département. Donc, ça, c'est la chance que tu as à moi. Sur le plan sécuritaire, nous avons eu la chance de mettre en place un dispositif opérationnel que tu pourras améliorer. Mais même avec ce dispositif opérationnel, en l'état, tu peux résultat. Puisque nous avons ici demandé au DGPL de nous mettre une cinquantaine d'hommes du groupe mobile d'intervention en permanence. Il l'a fait. Et ça, c'était la dernière. Il l'a fait cette année. Nous avons ici demandé au maire de vous de nous donner du, un terme pour pouvoir habiter un commissariat, un commissariat, euh, hôtel de police à la dimension des ambitions de la commune. Il l'a fait. Il nous a offert un hectare simple. 15 mm qui puisse abriter un service de police digne de ce nom. Et dans un endroit très accessible et stratégique sur le plan sécuritaire. Il a fait, monsieur le maire, soyez-en remerciés. Il a également, il a également employé un état au groupement mobile d'intervention. Pour un c'est un état de projet, mais ce terrain-là existe et nous l'avons visité, lui, le ministre de l'Intérieur et moi-même et le ministre de l'Intérieur a pris des engagements de mettre en valeur tous ces terrains-là à la disposition de, la police et à la disposition de nous. Et ça me permet justement de remercier vivement et chaleureusement les deux bienfaiteurs, Cheikh Gary et Babou Dubaï. Baba, merci pour ce joyau et d'ailleurs, le directeur des passeports a été surpris lorsque je lui ai envoyé les images. Il a été surpris. Ce qui a empêché le fonctionnement aujourd'hui même de ce, bureau, c'est que la valise technique qui était en train d'être mise en condition, cette valise a perdu un élément important parmi ses organes parce que tout simplement il y a eu coupure d'électricité. Les techniciens s'y afférés, pas plus tard qu'hier, et le directeur m'a fait la ferme promesse de mettre ce joyau-là euh, en marche à partir de lundi, Inch'Allah. Donc à partir de lundi, tout Mbouroua, je dis mais Mbouroua de la commune comme du département, parce qu'on va faire les bougies, on va les déposer. Sinon, on va Alors, tout Mbouroua, je dis, tout le département de pourra venir déposer ici à partir de lundi. Mais nous, nous, nous, nous, di wax ni commissaire lay bi dama jàpp ni demul parce que waxuma bi may bi may ñëw fii sax mais fu ma mus a nekk depuis ma dugg police nationale bokk ak moom néeg mu accueillir ma dalal ma baax c'est comme ça que je le dis di ma chaque fois di la wax lan mooy police nationale ba Espagne bi nga xam ni fa la jaaroon ñu waxtaan si man tamit ma jaar fa donc bëri na ay loo xam ne daf ñu liyee comme ni may waxee ay collègues lañ naam mais suma mag la suma grand frère la te loolu daf ko doxee daf ko waxee ci xàll yu bëri xam na suma famille il connaît tout le monde pour wane ni relation yi ñu am poste bu ma nekk aussi daf may woo di may wax defal nii defal nii bul def lii bul def lii ñun tamit bu ko gisee def ko suñu modèle wala def ko royukaay parce que moom moo ko wane te je pense qu'on ne s'est pas trompé de cible bi ñu ñëwee fii témoignage yi gis nañ ko c'était émouvant valeur yi gis nañ ko parce que nit ñi moom léegi kenn moomu la soo waxee soo defee lu baax ñu wax ko boo defee safaan ba ñu wax ko wala ñu noppi voilà donc pour dire que incha allah li ñu fi jot a def on va continuer dans cette lancée vraiment ñi ngi tàllal loxo ñëpp ça soit les élus locaux ça soit la communauté mandeng les responsables des transports quai de pêche vraiment toute la population xëy na de gan nañ mënaguñu xam ñëpp mais vraiment ñi ngi tàllal ñëpp loxo di sant di gërëm aussi ci Ahmed Tidiane Niane ak Mansour Naël bu mu bu mu àndal nga xam ne ñoom ñi ngi jógee bëri fis si suba leen départ yu fis je pense que joxuma leen gasoil joxuma leen oto ñoom ñoo jëlal seen initiative bopp ni dañuy ñëw bu ñu ñëwul woon tamit yàq suñu relation dara mais xëy na bu ñuy ñëwee am na yéene bu ñu bëgg a bu ñu bëgg a am na lu ñu lu ñu lu ñu bëgg a dégtal loo xam ne vraiment man xeebu ma ko et lu rëy la ci man maa nga leen di sant di leen gërëm ajjuma lañ nekk Euh, yaakaar naa commissaire wax na lépp comme j'ai dit c'est difficile de parler après son maître en tout cas maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàllal loxo ñëpp pour que vraiment ñu ànd ensemble dans la plus grande rigueur dans la légalité comme ni ko commissaire waxee parce que ñun suñu liggéey ci yoon lañ ko tënk du lu ñu neex def du lu ñu neex wax mais comme ni may wax tamit suñu matière première nit la nit nag booy dox booy liggéey ak moom dafa am xel li koy wutaleeg bàyyi ma wala li koy wutaleeg leneen donc nit ki boo jëlee le temps nga waxtaan ak moom comme ni ñu ko waxee nga expliquer ko yaakaar naa à quatre-vingt-dix pour cent li ngay lijjanti mën na lijjanti ko waaye nag dëkk bi comme ni ñu koy waxee yoon am na loo xam ni daf ko digle am na loo xam ni daf ko tere li nga xam ni daf ko digle ñun ñëpp buñ ci nekkee rek am jàmm waaye nag ku def li ñuy tere kat amoon problème commissaire wala amoo problème commandant yoon nga amal problème yoon nag c'est des textes procureur léegi la fi jóge code pénal la code de la ak yeneen texte mu ngi ñuy toog loolu moom ma ko moom moomu ko keneen ak keneen moomu ko comme ni mu ko waxee application humaine de la loi ñun ñëpp ay nit lañ ay nit lañ tant que loo xam ni illégalul on peut de voir en tout cas dans la mesure du possible mais ci dëgg ak justice ci loo xam ni kenn du tooñ nga ñëw ñu xar la koo xam ni dañ la tooñ nga ñëw fi mbaxana doone benn ñun sas bi ñu am mooy vraiment ñu yóbbu la fa mbaxana doone benn ñun d'ailleurs police du ñu àtte ñun du ñu àtte xëy na nag mën nañ dimbali ci ay négociation mais du ñu atte atte juge ñoo koy def mooy procureur fi toogal ak ñu nekk tribunal ñun enquête la ñuy def bu waree bu ñu rendre compte procureur mu ne nañ ko indi ñu yóbbul procureur bu ne bàyyi leen ñu bàyyi bu ne jàppal ñu jàpp donc pour wax ni ñëwuñu pour xoxatal kenn ñëwuñu pour tiital kenn ay nit ñu baax lañ fi fekk yaakaar naa si suba ba léegi diina rek moo fi jub vraiment loolu tamit ñu ci sant yàlla di sàkku ñaan aussi parce que dëkku ñaan la yaakaar naa imam Cissé mu ngi fi woon Chérif Aïtara mu ngi fi woon donc ñu ngi sàkku ñaan bu baax euh, di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah merci